mais Tafatine ngeen jël Tafatine seen euh, face to face bi ngeen xamante ne doon ngeen ko defee ci Joal ngeen ñëw Tafatine njëkk leen fa chaque jour Tafatine sax moo njëkk ndax démb moo njëkk boobu tamit moo njëkk mais saa bu ngeen ñëwee coow lu day bëri seen diggante nekk Tafatine da ngeen ko bëgg a perturber wala da ngeen ko bëgg a wane dama laa ñeme wala boog da ngeen ko bëgg a euh, perturber euh, merloo avant muy wax wala book lan lan moo tax saa boo ñaa boo ñaa ñëwee jàkkaarloo Tafatine nag coow ba bëri. du boo ñaa moo koy def. tafaatin xale bu discipliné la Tapha Tine non violent la Tapha Tine làmb la bëgg mais dafa am ñu ne ci wetam ñoo xam ni ay perturbateurs lañu ñu nag li ma koy conseillé mooy moom senegal a ko soxla làmb a ko soxla am na ñoo xam ni foog nga leen di raisonner wan leen ne leen su ngeen defee ba ñii du ñu bëreeg man fi ngeen ma doon teg dootu leen ma fa teg. kon bëgg naa ngeen gën a organiser waat ngeen ñu éviter ñuy animer te éviter ay violence moom moom moom la ñuy xool ci ñoom mais ñu éviter violence bi parce que nekkal ba euh, Tapha Tine rek pour su di ko xeexal wala di ko dugal ci ay xeex du dimbale ko nekk booy Boy aussi di ko dimbali ci di créer ay xeex wala yu mel noonu du dimbale ko li ñu war a def mooy suñu ñëwee na camp yi nekk animé suñ ñëwee seeni supporter nañu toog dend di waxtaan kenn ku ne di supporter di wax ay potentiel ci sa ci sa mbër valeur bi mu am yaa nga dégg jëndalante café naan boisson suñu paree di ñibbi en douce kenn ku nekk di glorifier sa mbër waaye booy eh, Boy musul ñëw ci benn prestation bu mu war a def ngay koy gis moom ak ay waa këram mais mais bu ma ñëwee ci Joal bi boo Niang bi mu dugg see am na morceau bu mu soon ci loxo bi bi mu ñëwee moom la buggoon laaleele Tapha waa kër Tapha Tine ne loolu du ci daal loolu moo andi coow li kaw ca ca ca ca Joal fa tegee 3 millions yi kaw loolu moo andi coow foofu mais démb Tapha moo leen fa mën na ko bañ CNG sax ah, loolu moom xanaa yooyu <laughs> ñiy seetaan wala boog waa CNG. ñaari mbër yi. Mhm. yaa li ñuy def ñoom ñaar la concerné. su amee pénalité CNG am na représentant moom mooy xool kan moo def lu ñuy tere mu sanctionné ko mais du par exemple benn nit bu ànd ak nit mooy ñëw di perturber loolu CNG du ko nangu. mais démb dañoo gis signature ba Boy Niang dong loon fa gis te Tapha moo njëkk ñëw lan moo waral loolu. Boy euh, Tapha Tine mu ko fa jiitu ëpp na 30 minutes mais bi mu ñëwee dafa laajte. kenn tardé kenn tardé wu ci ci ñoom ñaar alors bu mu ñëwee duggul moom. moom Tapha Tine moo xam ay raison lu tax duggul man nag bi booy Niang waree ñëw nee naa ne nañu woo waa kër Tapha Tine ñu dugg parce que maa ngi éviter télescopage si bunt bi bi ma demee ba xam ne ñoom dugguñu man ci laa ñëw wax booy Niang na ñëw dugg Boy Niang ma avancé oto bi ba buntu cosaan mu war a wàcc xeeri yi commencé waaw te xanaa boo waa kër boo ñaa duñu sànni seen bopp moo tax bu ñu wax ni ñële ñoo njëkk a sànni loolu nu muy mën a nekkee. da ngeen ñëw ba ci bunt bi waa kër Tapha Tine nii si xeer di leen ko sànni. waaw ci bunt bi avant boo ñaa di wàcc oto bi. gaare na boo de lu dul wàcc comme buntu ngi nii mu gaare nii oto bi maa ngi taxaw man fu mu wàcc xeer yi commencé ñëw vigile yeeg ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon yëpp daw di dugg si biir kii bi mais ba léegi ñoom ñu nga fa taxaw di arrière ndànk pour mun a génne oto bi foofu ñu toj pare-brise yi toj lunette yi toj lunette arrière yi ñu toj ko loolu nag euh, ñu ngi koy euh, déplorer vraiment di ko ñaawlu parce que làmb dafa dépassé foofu te làmb aussi dafa fragile ba nga xam ni loo wax violence ak lañ ciy xool Euh, Ousin làmb li mu liggéey ci réew mi bari na de. mais kenn gisu ci loolu ay violence la gis ay xeer yu ñuy sànni ay pono yu ñuy lakk rek la gis.